jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jëfal nañ leen mbokku internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci ginnaaw gi kon moom jëriñ bi ñu denk wàllu karange biir réew mi lee di Antoine Félix Diome daal di nay teewal kon njiitu réew mi Macky Sall ak gouvernement wu Sénégal foofee ci aéroport international bu Blaise Diagne ginnaaw rek jëm ci nag dëkk bu sell boobee nga xam ne nag suñu mbokku chrétien yi ñoom dinañu amal seen acc ñu daal wàllu concert de casserole bi nga xam ni bëgg nañ ko amal kon ci samedi bilee euh, ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août plateforme bi euh, tuddee seen bopp nag chemin de la liberation maanaam rek yoonu rek am liberté ginnaaw kon ñoom seen engagement bi nga xam ne amal nañ ko euh, jëm ci manifestation pacifique maanaam doxu ñaxtu jëm rek ci kon ñi nga xam ni politique moo waral ñu tëj leen ngir ñu daal leen bàyyi ca noonu itam ña ngay woo rek nekk file ci Sénégal nag ab concert de casserole maanaam génne rek cin yi lee wala kibéeru cin yi tëgg ko rek comme nañ ko doon defee ba tax na fili ci réew mi ak ca jaspora kon samedi gi rek lañ ko daal di jàpp ginnaaw julli timis gi